ban waykat moom moo la gën a neex d'après solom a neex solom ci sol du waykat boo xamante ne nii heure boo ko xoolee li mu sol rek ngay kife moo lay neex. waaw loolu bëgg la. ban waykat la. waaw solo bëgg. bëgg nit kii wala nga fànn ki mais nga xool kii nga xam ne heure bu génnee wala foo ko gis rek da ngay daw xool li mu sol. ban artiste la. soo ko bëggee. waaw soo mu sol ngay daw xool li mu sol parce que bëgg la da ca sol ba bëgg la. ban artiste nga mu way way way waaw way yeggale ci waale bi. moom nga bëgg ci solo moom nga bëgg ci way. waaw ci artiste yi waale la ah, hmm. ko bëgg trop. ko bëgg trop ci man dama koy seetaan trop mu ko bëgg daal ma ko bëgg sérieusement dama ko bëgg trop. borom woy wu wi. waaw dama ko bëgg loo man dama ko bëgg xam nit ki nit ki day bëgg nit te yàlla rek tax barki Muhammad damaa bëgg yu am trop. ba muy way cogonoon ko laa ko bëgg. ayoo nee tuuti. sama àddina nag muy lenn damaa nekk ci ci ci bi ma toll lu ma def loolu maa ngi koy def leen da nga ma manqué loo xamante loolu la ma xaw ma ko jëñëwaat ci àddina muy Lisa. lu boisson tudd Lisa. waaw loolu Pape loolu yàgg na ma loolu sax fekkee ma ko dama koy dégg rek. moo koy gisee tey parce que dama doon nekk xale di ko rêvé naan mosuma ko naan. mosoo naan Lisa. dafa amoon jàllo bu nekkoon sama koñ jàllo biti bu nekkoon sama koñ non naan Lisa. Lara danga ko. allergie woon wala da prix bi. billaay wala dama doon manqué juróom borom bi tamit ma déedéet nit ki damay dajale xool lii sax ba ma dee mën a yokk ci indice ba cent franc yi jeex xott yi laay am te a métti ma naan ko loolu li ma def yëpp am naa ko maa ngi toog saa léegi sama nekk am na kii am naa télé maa sant yàlla catuma sa bopp nag mais damay damay décortiquer dama koy. da sa bopp. damay décortiquer sama bopp waaw am naa télé amoo armoire amoo armoire sama yére si dama ko dugal ci saak ay saak laa ko dugal saak daaw moo tëdd ci ma laabu sama yére yi nekkoon si saak bi daal koy laal mu nooy tëdd ci delaw. ndeysaan loolu lépp reef la wante suñu koy sutura. non yëroo ma la xam ne jàmbaar nga. sa amoon yu ngand yooyu nga xam ne kon bët laa amoon télé yu ngand yooyu. benn bët bi yooyu laa amoon loo xam ne loolu yooyu nga xam ne quatorze nit mooy gént mooy moo ci génn ngay gis benn nit ndax tuuti quatorze nit ngay gis quatorze théâtre yi bi sa benn nga ci gis. benn waaw. muy gi damay tiim télé bi loolu indi ma looloo tax ma cataracte télé bi dama ko ñooxu pour gis ki ki may seetaan léegi damay toog en loin di si xool ki may di xool ki may. te danga koy am wel. moo tax waa Samsung man waa Serigne Mboup. di mhm. di profité ñi ma jox tere bi muy Serigne Mboub. CCBM. bi nekk euh, Serigne Mboub bu ndaw. Mhm. ak bu mag yëpp benn lañ. waaw ah. patron Kapo. Kapo ñun ñii dama leen profité parce que ñoo may télé bii. Mhm. day profité di leen wax ku ku bëgg jënd prix dama Serigne Mboub booy booy dem Dakar. léegi nag Pawlish Mbaye. ma ci dégg la damay wax Serigne Mboub trop parce que dafa baax ma dem Dakar dama foofu parce que man suñu kër aw aw ma daaw ma daaw ma woon seetaan télé amuñu amuñu woon télé ñu ma ñu ma su ma mosaan seetaanee télé moo tax yàlla mën na sutura su ma saa seetalee sunu kër bi topp laa doon def seetaan yi kër naare laa doon seetaan yi télé. mbaa événement naare fekku la fa. non non bi jeexee ba su may ñibbi sama kër damay daw ak lu ne laa dee ci benn ay kañ moo tax may way loolu man daw naa moom kañ a bëgg ma ndax ragal ne ma teel moo tax su ma a sutura dama dama amoon seetaan télé de amoon seetaan sori moo tax Golbert Diagne fi yàlla bàyyi. Mhm. Golbert li mu seetal sama xol bi man taw bi. Papa Golbert Diagne. kuréel li mu seetal sama xol bi ku tàngal sa tala gi li mu war moo tax deewee koo de yàlla na def yàlla bàyyi Golbert papa Golbert yàlla na la yàlla suturaal. Baye Maral Junior. Baye Maral Junior man na mosuma koo gis mosuma koo gis. dinañu ànd ndar. na la yàlla suturaal deewee koo papa di fi di fi dund dund dund te fan la xool boobu dafa kii yu xool kilifa yoo xam ne dañoo seddal réew mi. Mhm. xanaa xaw booy seddal sa xool sa xolu jàmbur ba nga man xanaa yàlla tere yàlla na yéex. xanaa xamoo damay seddal xool nit ñi man su waree dee rek sama bu jotee ah kenn lañu wàññi rey ko parce que man damay seddal xool booy seddal xolu jàmbur ku tànga xolu jàmbur da ngay gaaw a dee ñu gaaw a dee ñëpp day tànga xolu yi des fois man ñi nekk hôpital di souffrir nekk toujours maanaam souffrir sax. ñi nekk hôpital di souffrir. di souffrir ma ma ñu seetaan ba tere loolu nga foog ne yàlla dina la rey. loolu rek nga gën a dund. moo tax c'est le travail bu bees sax na. macha allah am nga sa néeg am nga sa clim am nga sa matelas am nga sa euh, armoire à quand Pawlish Mbaye takk jabar ay dama gaaw a loolu duma ci yegg yooyu yëpp ay prétexte la faju nga laal nga ay xorobat bool kon léegi daal mën nañ ni Pawlish mbay mi ngi ci yoonu takk soxna. Oh, am nga gel oh, am nga fit de toog ci kanamu écran bi naan gel li bari la am. Pawlish Mbaye li nga wax rëy de. xale yëpp. bu nekkoon fay bu nekkoon fay. waaw waaw. ay giwin dégg naa ñu ne nag jigéen bu demee ba nekk giwin góor moo ko def. ku fi takk ku ne te xool gi nga tax giwin loolu leer laa lay wax te giwin bëri nañ façon façon loo xam ne da lay nax giwin day da lay nax da ngay yow mi nekk jëkkëram. waaw yow la ñuy nax danaan danaan ki kii sama copine la boo génnee dem liggéey ñu toj kër gi. nga ñëw rey sa bopp du dul la sax dara te ñoom neexu ñoo daaneel neexu ñoo daaneel de giwin. luy loolu. neexu ñoo daaneel de booy def du ñoom neexu ñoo daaneel de. yàlla yaa am yàlla jaam Sénégal fii dëkku dëkku lislaam la ak góor jigéen ñi bàyyi na nekk góor jigéen fii dëkk lislaam la mosoo gis ñu ne jigéen a jigéen ñuy fii amul teel fii amul ko ci àdduna. Mhm. loolu ñu ne góor góor jigéen sax damaa bëgg ngeen gëm yàlla góor see jigéen. Mhm. jigéen see góor. nit mu solo gisoo ñu jeexee lu bon a bon. daa dañuy tuuti. man nag aw ma sensu gis leen soo bëggee xam xale yoo boo ko bëggee xam xool xale bu volumé ak ñaar ni volume wax ba ñu nekk ne ji ñu rocce ko jeex tàkk mel na ko jabet mel na da leen si lu bon a bon. Mhm. ñoom li ñu daanoo bari. Mhm. góor sax bu la daanee mais mais giwin da lay da lay baara da lay. bul yegg ci bul yegg ci loolu. da lay daanee 14 fois nga dama koy wax pour ñu xam ne giwin baaxul. lenn la yàlla mosoo ci bon ba bàyyi leen giwin giwin du kenn xamu ko takk léegi góor ñu takkatuñu jox parce que xamuñu ku ñuy takk koo takk koo koo takk boo mu sant day doon giwin te dal lay nax nit ñoom giwin a intelligent te doon intelligent. intelligente mais ma laaj la ci seen ci ndakaaru fi wala yow kon mu nga dem sa dëkk maam nga takk foofu indi. géwél géwél la rek géwél moom fépp la xanaa yàlla dimbali rek nga am am ci baax ay laa ilaaha illallaah li nga wax ree na de. man wóoluma kenn kat man wóoluma kenn fii. waaw sa rakk boo bokkal. déedéet sax ko daal ko teg sama wet di ko xool sama xol bi sedd dama xam ne am naa jabar am naa bi sedd ko fi takk boo amul sans giwin nga te giwin gën a ëpp ci àddina te def soirée giwin soirée góor yi to loolu da nga koy te kenn du leen wax lenn lu leen neex ci dëkk bi dañuy def. mais léegi pour loolu saafaraw kay na ci état bi ko loxo. état bi mooy état bi ñoom dañu état bi da cee dañuy dañuy ubbi benn règlement boo xamante ne dañ koy tëral ay charte la pour benn bi góor jigéen ñi benn bi giwén yi la ñu teg seen ay charte te góor jigéen ñi am na fit fit boo xam ne am nañ fit fit boo xam ne ni koo jox mu la tàccoo nee na laal ma laal ma boobu am na fu ko wéer loolu jaaxal na ma trop. laal ma maanaam dóor ma. dóor ma nga xool am nañ fu ko wéer ba tàccu la giwén yi ba waxee naan am nañ fu ñu ko wéer daal loolu jaaxal na ma daal ma lu ñu yor fetal wala. bralon am na xaw ma bralon xaw ma bras droit mais am na daal fu ñu ko wér baax a baax. Hmm. yal na ci yàlla mosul yal na ci yàlla mosul giiw laa a ragal sama àddina te am nañ doole am nañ fit dañuy xeex yow pour buur loolu na yàlla mosul giiw giiw na bon xale bi gi bi muy jeexee da ngay gis ñu rocce ko xale yu jeex yëpp giiw ne leen jeexal du SRS. xale yu jeex yëpp giiw ne leen jeexal giiw ne leen jeex xale yu jeex yëpp giiw ne nañ jeex yal na yàlla mosul ci giiw giiw man jiw a bon da lay rocce ba ngay rocceeku da gisoo non billaahi da ngay gis xale bu jox ma topp koo xam ne moo raw pour ñaaw bëgg ko di jooy loolu la. góor la topp wala jigéen. jigéen lay mel ni Poul léegi jigéen ñi du ñu ay góor de. grand no grand la grand wala bébé wala eh booy kaay léegi man jaaxal na ma ñoo fee ci dëkk man yar ma yàlla xaw ma xaw ma ku may tàkk xaw ma kan a tàkk. noonu la demee Pawlish may xamul ku mu war a takk jommi na jaaxle na ndax giwin yi ci réew mi kenn xamatul ko war a takk dëkk bépp ay giwin lañ te giwin yi seen morom giwin lañ takk loolu ma jaaxal ñoom ba may ragal leen te barke Muhammad boo leen gisee dañuy jongo ba feebar mais après la lay mujjee mosoo gis xam après lay mujjee jeex takk giwin yi kon daal yow sa seetlu ci moom ci ñoom mooy dañuy am yaram mosoo gis giir bu am yaram man damaa gis ñooñu man ma génn mosoo ci giir bu waaw loolu moom bàyyi lan bàyyi ay am yaram parce que daan ma bari ci benn jour ci daan quatorze di quatorze allahu na bon yàlla yàlla ci giwin yàlla nañ ci yàlla musal kay nga wax xawla wala xawta ula ala <laughs> wax nga lu la neex laa xawla wala xuwata illaa billaa alazim man jànguma de man kala jàngal ñu ngi koy duma de ma yaakaar ni ki la jàngal mooy ki la joxoon téere saw bi maa ngi commencé sonn ma bàyyi la kon nga nga tàggatoo ak gaay Stalin Sow mooy gis naa ko. Mhm. message boo xamante ne ni war nga ko lancé ñu nekk ci réew mi naan Pawlish Mbaye Mame Fatou Diolly sunu yaay ji ak Ouzin Keita amuñu yar loolu itamit war nga leen ko wax parce que ñu bari na leen da ngeen réew. nga ni. message boo leen di nga leen man maa tey. ah message waaw ñoom parce que. xamuñu la plupart xamuñu. Eh, mais ñu ay ñoom léegi yow mi ci boole nag ah, ñoom dañoo dof Ousin dafa dof Joli dafa dof Aminta dafa dof Paulus da nga réew. c'est impoli ah, maa ngi lay ñaanal suñu borom may la jàmm. may la tawféex. suma waay nga. yow nag ma xam damay envie am damay que da nga da nga aay. Ah yàlla yàlla fa cat. loolu nag ragal naa ko torop. boo boo soo bëggee rek laa bëgg. boo amee juróom jox la ñeenti dërëm yi jël dërëm. parfois nga jox leen lépp toog. déedéet lépp am dara mais jëlee ñeenti ah. dama ko tàmm rek biir la doon maa ngi lay ñaanal jàmm na nga bàyyi si saa bi nga xamante ne ni gaañ nañ baaxul. baaxul nañ baaxul te gi nii giwee mais laa wax de man waxuma gi. baaxul ko jéentu. noonu la demee mbokk yi Pawlish Mbaye mi ngi laajte fan la jëm ak giwin yi fan la jëm ak góor jigéen yi ci réew mi fan la jëm ak ñaawteef yi nga xamante ne mu ngi ci réew mi nee na itamit yàmbaa kenn du ko nangu ci réew mi parce que day dofloo ay nit wax na ci système wax na ci li nga xamante ne ni loolu la gis ci musique bi nee na du génnee album yéen ñu ko doon xaar kon xaddi leen ndax Pawlish nee na par deux ans lay génnee benn single ndax xalaat bi day metti amul maturité boobu noonu. amuloo xelu xalaat yenn son yu bari yi. noonu la demee kon nee tamit ku toog ne woyu Pawlish bi daf maa neex di jooy da ngaa seytaane ay woyam dawlu yaram kenn. waaw sama parce que mënu maa woy. Hmm. man mënu ma xaw lu ma neex man xam nga neex lu ma neex yaakaar bi rek ma jug te man sax lan moo ma gën a neex ci yow. non Pawlish yow kafkan nga. man damay for man damay for yow maa ngi lay bégee. jaa ngeen jëf mbokk yi